di nuyu jigéen ñi ndaw ñi mag ñi nga xam ne dañu bàyyi seen yitte yëpp ngir ñu teewee ay wuyu si Ndiassé mi woote tey di remercier beaucoup Ndiassé ci organisation bi mu organisé organisation bi laajul moyen yu bëri ay pexe yu bëri la laaj mais bii mooy ñaareelu yoon mu koy def ñu dellu si ñun ñi ñëpp ci koñ yoo xam ne ba ñu nekkee tout tànk fi lañ daan fowe di fi fubbalee di fi daw bu yàlla dogalee ñu dem ba amay doom ñoom it ñu ñëw di ñu bëggal ci si suñu ci même koñ bi dañ ci sant yàlla te remercier ñëpp ñu fi teew loolu tax ñu def ko fii ci ëtt gi mënoon nañ def ko feneen ci penc mi mënoon nañ ko def feneen fu gën a yaatu waaye dañu taamu fi nga xam ne mooy suñu xol mooy xolu Grand mooy fi ñu dëkk gannaaw buñ ko remercier di aussi nuyu suñu mbokk suñu xarit bu nelaw muy mbay sàll comme ni mu ko waxee nga xam ne bu doon tey yàlla bàyyi woon na ko fii ci suuf dina fekk dina fekkee jotaay ji comme ni ko Mountaga mii fekkee comme ni ko Modou Coulibaly fekkee comme ni ko ñeneen fekkee mu doon jàmbaar joo xam ne am na image yu bëri day dikk ci man bu ma ko xalaatee ay image yu bëri muy bés bànneex muy bisu safaan waaye saa yu ne yaa ngi gis mbay di muñ ànd ak fit ànd ak taxawaay ànd ak pas-pas donc mënuñu lu dul ñaanal ko ak fàttaliku ko yàlla na ko yàlla yërëm te xarañu te bàyyi ñu fi lu yàgg-yàgg di nuyu aussi suma xarit suñu xarit ñun ñëpp monsieur Birame Faye directeur général AME du directeur général moo fi ñëw suñu rakk mag ci ñi suñu xarit yàgg ñëw Thiès fu ne fekk nañu fi ci événement bu ne depuis ñu nekk opposition ba ba ñu ñëwee ci pouvoir ba tey jii nii donc du directeur général bi moo fi ñëw xarit moo fi ñëw mbokk moo fi ñëw comme ñun nu ñuy demee di ko fekk léeg-léeg Fatick ci yenn événement yi di ne bala may ñëw tuuti ci sport bi que am na ay événement politique yu bëri yoo xam ne ñu ngi ñu ciy xaar waaye xeju fi dinañ ci waxtaan waxtaan yu yaatu ci weekend bi ci média yëpp dinañ ci dellusi ci mbirum gaz bi ak pétrole bi nga xam ne lu ne dégg nañ ko ci dinañ ci dellu siwaat ci yu gën a yaatu ci émission yu yaatu ci télé yeeg rajo yi ak même presse écrite bi buñ ci waxee nag ba indi ci firnde yu leer nga la après nañu continuer liggéey mais dinañ ci indi firnde yu leer ci coow li nga xam ne dafa am ñu ko yëkkati dara taxul ñu yëkkati ko lu dul euh, lëndëmal xelu nit ñi ak détourner attention gouvernement bi ci problème mu sénégalais yi waaye loolu du am. di dellu si encore une minute rek ci problème mu électricité bi nga xam ne xewoon na fi bu ma taxawee fii ci cees wax ni waa cees xam nañu que ñun amul benn minute bu ñuy nelaw ci soxla sénégalais yi ak soxla ceeswaa ñu mën ma gëm te lu koy firndeel lu koy firndeel ayu bés maanaam semaine yu jiitu xew-xew yëpp ñu ngi woon ci Sénégal ci ay tournée gis nañ ñu bokkal ci centrale électrique bi nga xam ne dinañ ko régler ci dinañ ko délivrer dans quelques mois dinañ ko inaugurer dans quelques mois gis nañ ñu ci monde rural bi ci affaire électrification rural ay village yu bëri yoo xam ne courant cinquante ans mosu ci am mu ñëw fa gis nañu depuis le début de l'année ñu inauguré ay centrales yu bees muy Tobène muy Cap des am yeneen yu nar a ñëw gis nañu aussi yàlla dafa dogal sax foofee incendie bi am ñu ngi doon waajal di tabax ku fa dem di nga fa fekk chantier boo xam ne tàmbale na ça fait quelques semaines pour ñu remplacer jumtuwaay yooyu nekk foofu donc liggéey bi ñu ngi ci képp ku bëgg a ne càggante wala ñàkk farlu wala ñàkk jël matuwaay yi ci war pour électricité bi jëm ca kanam ku ko wax danga wax xëy na da nga wax li nga doon bëgg yow mu am bëggoo électricité bi calme waaye sénégalais yi xam nañu ni électricité bi am na ay jéego yu am solo yaa ñu ñaan yàlla rek suñu mbëbët mu ñu mottali ko wolof nag nee na yàlla yàlla béy sa tool def naa ni sénégalais yëpp encore une mun nañu seede ni tool bi ñu ngi ciy béy waar wi ñu ngi ci ndax ba président ñëwee lu ñu njëkk a def mooy centrale yi fi ne woon te nga xam ne yu ci gën a bëri mënatuñu woon joxe li ñu waroon joxe ñu yeesalaat leen muy butut muy kawoon muy cap de bala nag bala nag ñuy mën a tabax centrale yu bees tàq loolu tax 2016 bi dinañ fi inaugurer entre janvier et décembre pour 250 mégawatts mooy xaaj liñ fi fekk en 2012 ci capacité 2017 dinañ fi def 250 yeneen mégawatts mooy boo boolee 2016 2017 dinañ tabax ci centrale yu bees lu yem ak luñ fi fekkoon 2012 te di fàttali que lu ñu fi fekkoon 2012 ay centrale yu màggetoon la donte dañ doon ne 500 mégawatts la mais 500 mégawatts yu màggetoon la yoo xam ne puus mu tàkk la woon. ñu yeesal ci lu bëri mais 500 mégawatts yooyu dama ne en 2016 2017 dinañ ci def ay centrale yu bëri yi nga xam ne dina toll ci 500 mégawatts yu bees tàq loolu wuute naag ligne yi ñuy defar wuute naag post yi comme post bu ma tudd léegi yu ñuy defar. donc nañu dalal xelu Sénégal yi te fàttali leen nag am na loo xam ne bu ko doomu aadama defee surtout per de famille boo ko defee ak sàggan xaw na la dal mooy liñ de haute tension yi nañ leen moytu. li xewoon fii Thiès maare day taali bu doon bëccëg la xew dina gën a garaaw mais ligne trente mille volts rek la ku fa dem gis nu fii lii daggatee ba tasaaroo gis poto lampe béton yi nu ñu wàññaaroo ba tas gis yenn kër yi nu ñu. lakkee ba ñuul xam ne bu doon quatre vingt mille volts la dina gën a graaw waxuma nag deux cent trente-cinq deux cent vingt-cinq mille volts deux cent vingt-cinq kilovolts am na ci te am na ñoo xam ne dañuy sàggan di liggéey ci suuf wala di tabax ci suuf naam gouvernement baa ngi ci di toj kër yi gis ngeen ñuy toj ay kër aéroport wetu aéroport ay toj ay kër belleer waaye mënuñu saa yu ne saa yu bés setee au ñu dem ci suñu liggéey di dem ci toj ay kër wala di tegg yu bon yuñ fii ni ñu teg donc loolu ab message bu gàtt la woon di dalal xelu nit ñi di leen ne képp koo xam ne ànd nga ak dal rek ak bëgg a liggéey xam nga ni def nañu ay jéego yu am solo ci mbirum courant bi maintenant enquête bi yaa ngi wéy fu may daanalee mooy fu ma commencé waat fu ma ko dooree na ngeen déglu ci affaire pétrole bi ak gaz bi ci weekend bi coow li bëri woon na lool waaye ku jóg rek nga tontu finalement doo liggéey pulaar nee na daw ak waxatu sa tànk àndut munoo di liggéey di nem ci biir monde rural bi di suivre électrification rurale bi di bëgg pays bi butaan bi bu mu am rupture stock yi mot centrale yi tourné gaz bi ñu koy recherché di recherché ngay répondre saa yu ne bi yoon dinañ leen indil fësal leen réponse yu leer naññ bu paree pare na une seule fois débat ak ku ko bëgg ci mu leer naññ après nag dootuñu ci wax ñu jubluwaat continuer suñu liggéey di leen gërëm di leen sant di féliciter di féliciter équipe yi fi joué wax dëgg yàlla waxtaan yi ndaw yi interpellation yi sax train nañ ma ma xool match bi comme ni mu ko bëggee woon waaye am nañu fi am technique ñoo xam ne ràññee nañ leen ci technique bi moom macha allah xëy na yokk infrastructure yi yokk encadrement bi pour que Sénégal fu mu war a mën a toll ci sport particulièrement ci football fu ñu war a yegg maintenant ci gañe ay coupe ak yooyu ñu gañe ko ndax li ma fi gis moom ci équipe bu quartier war nañu véritablement xam ni que Sénégal am nañu capa talent yu bëree bëri macha allah di féliciter aussi ASC e Grand Thiès bi nga xam ne mu ngi final phase nationale yi ci cadet di félicité féliciter ASC Diamaguène malgré élimination bi ñu ngi leen di félicité ci nu ñu représenté dignement Thiès def ci seen kéem kattan vraiment di ñaan yàlla waa ASC Grand Thiès delloo si fii coupe bi ñu célébrer leen ñoom ñëpp di remercier encore une fois Ndiassé Bey ak ñëpp wasalaam. ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu waa waa gox bi Grand Thiès di leen gërëm di leen sant. ci déplacement bi ñu def di xam ne rek li day wane ni respect bi ngeen ñu jox ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant parce que xatoon na mënoon nañu leen woo ngeen bañ a ñëw wala ngeen nekk ci yeneen activité mais gis nañ déplacement wu ku nekk bu ñu naree lim rek dañuy juum di remercier di gërëm képp koo xamante ni artiste nga ñu seq jàmm ma woote woote sargal Thierno Alassane Sall di mon frère di la ministre de l'énergie dëkk ci koñ bi ñoom ñëpp ñu def la déplacement les jumelles ñoom góor gi Ndiaye ñoom màgg daan ñoom atuutu ñoom mbaaye beuse ñëpp ñi ñëw ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen remercier di nuyu aussi suñuy waajur di nuyu sam papa di nuyu aussi sama yaay ak suma famille di leen gërëm di leen sant di wax ni pourquoi ñu initier lii c'est une c'est la deuxième édition comme nu ko nu ko nu ko kii waxee laay jàpp naa ni ñun ak Thierno Alsane du affaire u ministre du dara mais c'est notre ñu war ko supporter ñu war ko jàppale épreuve bu mu nekk ñun dafa war a tourner gis ñu à ses côtés que loolu ñun moom lañ gëm te loolu mooy suñu engagement loyauté bu ñu am envers sa personne loolu dañ koy continuer di firnde parce que nit la koo xamante ni ceeswaay yi ak ceeswaas yi dama leen di ñaan ñu gën a gëstu ay mbiram gën ko xam parce que buñ ko xamee dinañ xam ni Cees am nañ doom boo xamante ni lépp luñ ko dénk dina dellu ci askan bi te waa Cees dinañ ci gis seen bopp loolu nag nit ki mënuloo sori ko ba pare xam ci moom yu bëri moo tax may prêter seen attention ngeen gën a suivre le ministre Thierno Alassane par rapport ak ses déplacements par rapport ak cursus scolaire am par rapport ak cieloom parce que nit ki nga xamante ni am na engagement démb pour Sénégal développé tey soog a ñëw ñu gis ni bu mu nekkee dès le début à l'ESSECNA ba nu mu nekkee infrastructure daf na ay réalisation yu am solo fii ci Thiès fii ci Grand Thiès daf na fi ay réalisation yu nit mën teg ay bët muy tali bi jëmoon ci kër sëñ Saliou Mbacké moom moo ko defar réfectionné ko à neuf tali bi jëm ci sëg yooyu moo ko defar à Grand Thiès route bi jëm route nationale bi aussi moom moo ko defar mu nekk tali yi nga xamante ni damay wax rek côté Grand Thiès waxatuma côté Jaxaaw côté Parcelles côté safraako donc bu ko dénkee infrastructure def na fi liggéey bu am solo waa Safraco waa Grand Standing waa Sudestat am nañ benn problème bu majeur mu doon problème mu ndox taxaw na ànd fi ak premier ministre Boun Abdallah Dionne mu ñëw. ñu fexe ba réhabilitation château d'eau bi euh, taxaw ba ñoom koñ ñoom Muntaga soo fa nekkee léegi da ngay am ndox à 100 pour cent te loolu jafe woon na Thiès te le président Macky Sall lépp lu mu wax askan waa Thiès jàpp nañ ni incha allah bu nekkee ci côté ñoom Thierno Alassane Sall dinañ ko fàttali mbiru Thiès dinañ ko fàttali mbëbëtu Thiès jàpp nañ ni c'est un homme intègre un homme boo xamante ni mooy li ma leen wax dès le départ ma leen di ñaan ngeen gën ko suivre. am na engagement jàppale na ay jeunes fii ci quartier bi du ma tayal di ko wax mooy suñu mbokk Baye Fall yu nga xam ni tout le temps ñoo doon nekk ensemble ñu bëri gisatuñ leen dañ may laaj Ndiassay ñoom Bokar ñoom euh, ñoom ñoom Gaynde ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Major ñoom El Hadj fan lañ nekk ñu ngi toujours ci VDN troisième section bi am na ñu ci yóbbu sax Tamba te boobu mu ngi nekk infrastructure ñeneen ñu ngi Ageroute suñu frère Daado Ba man mii di wax ak yéen je suis plutôt mu mu ma yóbbu. Petrosen fa laa nekk di liggéey di ko ci gërëm parce que nekk na mbir boo xamante ni bu mu amee quartier bi kontaan nañ ci suma famille aussi kontaan nañ ci parce que ça pas dire que ni dama ko defal politique rek daf ma war a fay non non non dama def politique parce que dama gëm ni moom Thierno Alassane bu teewee Thiès dina dem sa kanam te comme Thiès voilà dama war nekk toujours à ses côtés pour le développement de Thiès pour l'intérêt général mais pas intérêt individuel di ko ci gërëm ci loolu di ko ci sant di ko wax ni suñu ñaan mu yëg ko ak mu yëgul ñu ngi ko koy eh, defal saa su ne di gërëm ñëpp ñoo xamante ni encore une fois déplacé wu nañ yombul woon di rappelé wu ni liggéey bi nga xamante ni moom lañ am muy Grand Thiès ak yeneen gox yi dinañ def le maximum pour que incha allah ñu am ay résultats yu positif ci élection yii di ñëwaat parce que am na élection yi passé ci référendum yi dooroon nañ benn liggéey am na jéego yu am solo yu ñu ci def loolu nag du ñu naagu dañu war a continuer ci terrain bi continuer fi ñu demoon ñu continuer waxtaan ak ñoom bu ñu bu ñu xewlee lu ñu mën di xewle ñu teew bu ñu teewee ëllëg si biir suñu soxlaa seeni voix dinañ ñu ko jox te loolu moom comprendre na ko lépp lu xew ci koñ bi muy dëcc muy ngénte lu mu mën di nekk le ministre Thierno Alassane bu déplacé wul ñëw yónnee na te loolu mu nekk ay loo xamante ne dafa am solo sur le plan politique parce que politique kat da nga war a jege population bi politique boobu moom xam na ko muy politique de proximité ñu ngi ko ciy gën a gën a ñaax di wax ni ñun jeunesse yi muy ñoom Mountaga ñoom euh, Moussa Kébé ñoom Modou Koulibaly ñoom Samba Kumba Madior Pape Ngom su ma limee rek day compliqué parce que ñooñu ñëpp dañu engagé wu derrière le ministre Thierno Alassane Sall gisuñu lu dul no jëm ca kanam te ñun loolu mooy suñu engagement tey te mooy nekk suñu engagement ëllëg parce que nit ki kat boo koy jàppale mooy li ma wax ci ndorteel bi da koy jàppale pour que Thiès war a jëm ci kanam ñun jàpp nañ ni buñ ko jàppalee Thiès dina jëm kanam ca Thiès dina avancer. di remercier le doyen Babacar Ndiaye ak le doyen Mansour. ak ñoom Madaa boog ñëpp ñu fi teew bu ñu limee rek day xaw a compliqué di wax ni faatim Fatim Georgien déplacement bu mu def vraiment kontaan nañ ci mooy responsable des femmes PS bu commune d' arrondissement Thiès Ouest lépp lu ñuy waxtaan au téléphone moom à son niveau dañuy nañuy continuer di jàppale Thierno Alsane moom donc xalaatam boobu bien vrai que mu ngi nekk PS mais départ bi nu mu ko waxee gis na ni kii c' est un homme de valeur buñ ko jàppalee suñ bopp lañ jàppale le bokkum ñu jàkkaarloo kër mu nekk un frère mu nekk euh, euh, réew mi man ma nekk APR teewul tout le temps dañuy waxtaan ci lu bëri di déggoo parce que loolu tamit mooy mooy àdduna politique ça ne veut pas dafa nekk position bi ki nekk position bële waru leen di ànd Ajibou mon frère est là et tant d'autres mu ngi fi woon Ibrahima ñoo ñëpp dañuy toog te ñooñu bokkuñu idéologie bokkuñu gëm-gëm politique mais lu ñu bokk moo gën a foor muy Grand Thiès lu ñu bokk mënuñu ko partager mën mënuñu jaxase te duñ mën a jaxase may wax ni suñu sœurs yi suñu grand frères yi suñu petit frères yi suñu papa yi suñu yaay yi ñu leen di ñaan ngeen gën a taxaw dooleel Thierno Alassane Sall jàppale ko mu nekk. firnde boo xamante ni ëllëg si biir développement Thiès bu tegoo ci loxoom nañ gis ay résultats yu positif di gërëm ñoom Yacine Ndaw ñoom si Sarr di gërëm euh, astu astu Ndiaye ak ñëpp ñoo xamante ni teew nañ ñoom Khady Traoré ñoom ñëpp di wax ni mbay Sall aussi c'est notre frère dès le départ rendroon nañ ko omage par le biais de laay laay bu yor microcentral bi kooku suñ frère la ñu ànd ci ay moment yu yu difficile moment yu facile tamit benn instant mu yàlla jël ko ci ay conditions yoo xamante ni suñu borom moo namoon loolu ci moom ñun lu ñuy def tout le temps mooy di ko ñaanal parce que ñaan yooyu rek la soxla ministre bi tamit am na taxawaay bu mu def ci moom depuis lors aussi mu ngi taxaw à ses côtés ci côté fameem loolu defal ko mbay ñun ñëpp la ko defal parce que ñun bu ñu amoon loolu defal ko mbay mais loolu saa yu isaa di fa dem dinañu rendre compte ñu ci kontaan di xam ni mbay moo ngi laaxu na mais xelam a xalaatam yëpp yaa ngi koy def ci mbay kon ñun dañu jàpp ni ku ñuy àndal ki ëllëg si biir kenn xamul lu mënoon di xew day nekk à nos côtés te lool moo am solo booy ànd ak nit danga ngay ànd ak moom ci ay preuve yu facile épreuve yu metti aussi nga taxaw à ses côtés loolu gis nañ ko ci moom te loolu nu ngi ko ci sargal di ko ci remercier di féliciter ñëpp di sant ñëpp wasalaam jaa ngeen jëf